mooy Sénégal parce que ay ndaw la ñu Racine Talla suñu jigéen ñi ak ndaw ñi loolu dañ cee war a xar suñu tànk ci pour am résultat ay résultat n'oublie pas que dañ former 500 femmes ba pare dañu fas accompagner leen ci ay unité de production ba pare fas leen accompagner ci code barre ak ci Fra ci emballage bi nga xamantene mom lañ am problème ak problème écoulement Inshallah, dinañ ci taxaw femmes ba nga xamantene ne dinañ mëna autonome 500 femmes yi ñu formé bërki dem dañu fas and ak ñom financer leen ba ñu mënal seen bop parce que am nañ partenaire bu tudd Promise ñi nga xamante ne def nañ transformation fruits et légumes dina leen accompagner ci ay congélateur ñi nga xamante ni nii dañuy def euh, euh, euh, céréale locale bi fas yéene nañ pour accompagner leen ba nga xamante ne nii lépp lu ñu produire te dinañ ko mën a jaay damay nuyu sama yaay yi bu baax a baax a baax yéen suma ay yaay ngeen lépp lu ma def rek dama leen ko war a defal di gërëm bu baax tamit délégation bi ma di ci gërëm suma suma xarit suma yaay ah su ma lépp muy madame Talla fépp fu ñu dem ma ne ko nañ dem dafa sonn campagne bi yëpp tëddul nelawul ñun 4 heures du matin la ñuy tëdd 9 heures ñu jógaat ah di gërëm mbenn mu ngi lay gërëm bu baax a baax présidente mbenn ñu ngi lay gërëm euh, di gërëm tamit suma soxna maa ngi koy gërëm bu baax madame Seye parce que ku am jëkkëru jëkkëru jëkkër ji politique nattu la doo am benn vie ñun amatuñu vie presque deux mois ngi ne xamul trois mois ay deux heures du matin la ñuy tëdd trois heures du matin suñu njaboot sax pour ñu gis ñu problème la mais nag dañuy dinañ xamal adversaire yi ne leen ñun man pap Seye bu tutoon Racine Talla yeneen dix listes yi suñ sampee seen ndënd ma samp sama ndënd parce que ëppalewuñ ma fi dara man maa leen fi gën a yey ñoom man doomu Wakhinane Nimzatt laa sama carte ne à baylaay moo ci nekk te def na liggéey nañ fi ci suñu ay waajur ba ci ñun liggéey defuñu fi lu ñaaw kenn mësuñoo fekk ci lu bon wala nga ñuy gis duñu xeeb déedéet kon nag Racine Talla su bëggee suñu papa tette ñu ba ñu tell fii tey su bëggee dañ koy jàppale te gars yi dinañ xam ne le 23 5 heures dinañ xam ne lépp dëgg la dina leen duma sëlëm leen ah lépp lañ leen di def incha allah maa ngi gërëm waa koñ bi bu baax a baax di gërëm xaar jong incha allah dinañ la seet ni ñu seet sagar caam seet si ko Ndey Xadi Mbaay seet ko yeneen groupement dinañ ñëw ba si yow dinañ la seet si dinañ la jàppale incha allah